Galas Mbaye yaakaar naa boo ko waxee xel yëpp day dem ci sëñ Fall sëñ du wayoon fii sëñ Fall way gu rëy sax <laughs> dafa mel ni. way woowu may lépp. way woowu euh, defal na ma lu ne ci àdduna. waaw way woowu moom ndax yaakaar naa ku min way wi xam nga ni 2004 la wan. 2004 ak léegi nag léegi moo am ay fan. te tey jii day mel ni tey jii la way wi génn. waaw nag Sëriñ Fallou. ndax moo waxan ni da ngeen noon sàmba mënul kanam man ginnaaw mu ñu ni waaw mu ne ba mu des seenum sàmba daani bi ma bis bu ma amee ñeen fukki at fii laay gën a xew kon loolu ci way wi ci barkeb sëñ Fallou rek lay dox. kon xanaa bu amee 40 ans lay gën a lay gën a dox <laughs> incha allah. incha allah léegi së së sëñ Modou xilaafa yi yi nga fekk xëy na mën na mën nañ wax ni mën na ne bu Serigne Saliou wala bu Serigne Abdoul Ahad. bu Serigne ban xilaafa moo la gën a marqué ak lu tax. xilaafa gi ma gën a marqué mooy sëriñ Saliou marqué na ma lool waaw ndax sëñ Saliou ñun ñu ko xaman ñun ñi nga xamante ni moom lañ yëkkati woon ñu doon ay ndaw ñu yóbbu ci moom laata muy doon Serigne Touba ak bi mu doonee Serigne Touba euh, Serigne Saliou moom marqué na ma loolu ndax damay faral di wax nii Euh, bu wax dee or noppi di jamaa mm-hmm. sëñ Saliou nag noppi la fa jaman mm-hmm. waaw baatam boobu moo xam daal ba mu ci jógee mm-hmm. kenn déggaatu ko ci dara lu dul islaam uma ci yàq ba ca defar ma macha allah Serigne Saliou noppi gi léegi ci daara ja la la la la ne woon di am na ay moment ak Serigne Saliou yooyu fàttali ko bu baax a baax a baax a baax Serigne Saliou toog nañ ba tàyyi mu ñëw ci daara ji woon ñuy kuréel ci kanam loolu yàlla dimbali leen def defal nañ ci taw feex ndax euh, ku miin daara yi sëñ Saal yoo xam ne ñetti kuréel la fay nekk mm-hmm. gi mag gi ci topp ak gi ci gën a gi ci gën a ndaw mm-hmm. yàlla boole woon man ak ci gi ci gën a ndaw saa yu musaa ñëw ñoo ko daan jàngal mi daal di àqlaam yi xasida mu bëggoon la waaw waaw noonu la demee macha allah léegi léegi sëñ Modou Euh, maanaam xëy na kaset yeeg yu ni mel jàngkat daf mel ni jàng euh, jàngkatu léegi faralun farataalunu génne kaset waa xam nga euh, lu nekk rek ak période tam yaakaar naa jamonoy quatre-vingt-dix-sept man ci laa njëkk a jàng kaset waaw ci laa jàng rum na boole koon ak inni aqulu ak yeneen xasida magal 97 la ñëk jëng jéng génn préenregistré booba nak cassette rek mo xew mhm. mais kaset dafa dem ba légui dafa melni dafa andu am lenen lu ñëw mhm. euh, li ñu jakarlo diko wax rek bokku na ci li nga xamanteni mo gëna efficace mhm. te mo gëna tamit jotalé ci aduna bi ah, kon jamono ji mom sa yu ne non rek lay démé aha légui machallah sa su ne jamono lay dox lagi sen sen Modou mu mel nak sa suné ñogi gis ni euh, day gën a dox programme di gëna bari nit ñi di jangkat lagi soxla jankat léegi tay ku bëgg a jokkoo ak sëñ Modou wala euh, dafa am intermédiaire ménagère wala da ngay fay wala num démé non wa xam nga nak euh, dama musa dégg wala sax ma fekkee. Mm-hmm. sëñ Moutalaam Sëriñ Tuubaa waxan ablay Seck ne ko mba nit ñi duñ leen sonal ci no ko mbacke dina ni ci sonal kay mu Ablaye ni ngeen koy defee ni ngeen ko mané te bu len ko defee ni ko nit ñi bëgg ndax nit ñi len ko bëgge seen lorang rek lay jur waaw lolou mo ma dégg doon wallahi na si ma dégg doomi seigne touba wax ko seigne Abdoulaye sek ma ngi koy nuyu bu baax njàng mi nak damay faral di wax ni ben marchandise la bu nekk ci marché bi hmm. ben client rek mo koy jënd si te ki koy jaay faaw mu jaay ko client bi kon du am jafe-jafe. dëgg la waaw. <laughs> dégg naa waaw léegi macha allah ku bëgg a jokkoo ak sëñ Modou. waaw ku bëgg a jokkoo ak sëñ Modou Galas mën nga rek ci numéro téléphone am hmm, numéro naa nit ñëpp miin nañ ko muy 77 633 44 39 loolu mooy sama numéro hmm, ku ma ci woo rek di nga ci jokkoo ak man léegi macha allah sëñ Modou mu mel na nag wax fa dëgg yàlla soppe yee ngi seetaan euh, ñi namm sëñ Modou ci jàng yee ngi seetaan xanaa nag wax fa dëgg yàlla du ñëw ba fii te doonu ñamal tuuti ci sëñ Fallou bi ya sayidan fi lmaali xal sarwaahu wa ya muhiban fuadi dara maswaahu inni ataduni wajilay sayrakum abgi bihin nayla ma arjuwa waahum bismil ilaahi ci barkeb seyxi faddilu mi buru yàlla dollinu ay maqaama yàlla qalbuka saddaati maay bëgg a way tey ji ma way fii sangub góor ñëpp yàllaahu kookaa di seex fa lu kookaa mag mu rëy mbir moo gën ñu njëkk ña gën ñi ñëpp yàllaahu ku ni ma musu fee am mu ku dootu mi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàlla tey ma jooy seexu naa sëriñ Fallu mbër ma ni mees mbooleem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla murid yi ak tijaani ñëpp ko jooy ak suus ak asamaaw sing ndox mi yàlla ak jënt beg weer wi ak biddi yi lépp ko jooy ak doji ak njanaaw yeeg njaay alli yàllaahu malaayika ak jinne ak yónneen yi lépp ko jooy ak sabay ak xuddub yaak walli yàllaahu wiital nu ruyu ci duniyaa yëpp kullu moo ru yëpp jooy nan ko cey Seex Fall yàlla mboolem lu nekk ci dunya lépp lépp ma ko jooy lu nu xam lu nu xamul mboolem lépp yàlla masil na ñang moo way way wi di sakku yi ngaram ci yàlla ak ki sëriñ Tuuba fa yàlla am na ci moom Mbàkke moom la ma xama Seex may na ma Seex Fallu may na ma Sëriñ Fallu may na ma ay furne Yàlla moo tax ma xam buut ya ak sañ-sañ ya ma la ko ak doole jàng maya ak xarbaxi yàllaahu ma joy falulaay masil la ñang na dem zaab sëriñ zaab xarit ciy ma sant yàlla barke borom Tuuba macha allah yaakaar naa ni eh, wax fa dëgg yàlla man sama xol sedd na te xam naa tamit xol yëpp sedd na léegi sa sa sëñ Modou dafa am xëy na lu ma doon dégg ñu koy wax naan jànkat yi soxna yi dal leen xaw a sonal lool sax waaw damay faral di wax ni ndégam ñi nekk ci naka sudul noonu sax ñoom la àdduna yi la jël waxuma laa ki nekk ci nag ci lu baax ndax soxna yi tamit kenn gënu leen a bëgg lu baax te yàlla da leen a may benn benn loo xamante ni ñu yàlla da leen ko defal fépp fu leeru yàlla nekk rek ñoom xam nañ ko bu ko defee nag euh, ñaan rek suñu borom ki jóg ngir lu baax yàlla wamatal la ko indil la ko ki jóg nag ngir ab safaan nga ñaan rek yàlla musal la ci ndax yàlla mooy musal ñëpp. léegi ma ma macha allah sëñ Modou sant na bu baax a baax léegi nag xëy na dafa am laaj gun doon mujjee rek muy wala sax mën na bañ nekk laaj muy lan ngay dénk murit ñi ci ndigalal sëriñ bi ci tàkk masque yeeg bu ñu jëmee bés bés ba ak yooyu yu waaw oh, xam nga sëriñ Mountakha comme takk na masque moom takk masque rek ay xew dafa loo loo xamante nii moom euh, damay faral di dégg ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa yëngu ci wàllu àdduna ñu ni. dëkk bu mel ni Amérique am na ñoo xamante ni bu nu tolloo ci élection seen wenn carte day wecc ay junniy carte xam ni sunu suñu wàññee seen wenn carte woo day wecc junniy carte mm. sëñ Muntaxa nag euh, takk maskam boobu mm. euh, gars yi jëratul sax ñuy digle ay takki masque comme sëñ Muntaxa takk na ko ñëpp koy takk incha allah macha allah si lan mooy sa kàddu gu mujj xanaa sant yàlla bu baax tey julliwaat ci yonant bi rek sallallahu alayhi wa sallam tey dellu sunu kóolitewaat ak sunu yaakaar ci seexul xaddim di ñaanal nag sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg noonu lañ koy ñaanal sëñ Abu Baraka mi toog jotaay bi Cheikh Modou Fadal waaye di siyaar sama sëriñ Cheikh Mouhamadou Mourtada seex Cheikh du faadal ak rakkam ju baax ji soxna maam Faati di nuyu ak njabootam di nuyu ñëpp di nuyu rek fépp fooy mën a nekk tey jàkkaar ak du Galas mi ngi maa ngi lay jox loxo te di la wax yal yàlla yóbbu ci màggal gi ci jàmm ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm yàlla bu ci kenn am men ndog ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal te bu buñ demee nag li tax sëriñ bi woote woon màggal gi ñu góor góorlu ci mooy jaamu yàlla ak bernde mm. waaw loolu daal sëñ bi woote moo taxan mu woote màggal gi man mm. fexe ba di jaamu yàlla bu baax ak bernde mm. waaw incha allah. macha allah li moo ne woon seen émission safar ak tey nag muy safar ak sëriñ Modou Gallass Mbaye ñëpp dégg gis nañ ko macha allah ci yar gi ci dal gi loolu la ko ñëpp seedeel wax fa dëgg yàlla kon dañuy ñaan sàmm borom dolli ko sàmm dolli ko dëgëral te fépp fa nga xam ni mbébét na ko Sëñ Tuubaa yóbbu ko fu ko kawe ngir Mbàkke moom kesee fa yóbbe te moom kese fa xam di <laughs> dellu di jaajëfal rek Sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér Sëñ day sunu ndam day sunu sakk day sunu wërsëg day sunu teraanga day sunu am day Sëñ day sunu lépp yàlla na ko fi sàmm borom saxal mu sax fi dàq barke borom Tuubaa ñàngum sëñ Modou Garas bi nag dama koy may ñeent ñi nga xam ne ay soppe sëñ Fall loon kenn ki sama baay la di Momar Thioune ñu gën ko xam ci Pape Modou keneen ki Pape Yoro Fall keneen ki Caba Fadal fal ak ku ñuy wax duut ba muy bëgg fàllu fële ca ndar kon di ñaan sam borom mu dolli leen dëgëral ba seen bëgg ci sëñ Fallu sax dàkk faw di leen jox dig daje beneen yoon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salaatu lazi fi kul lisanin wa